ndaje bi tey li ko li ko illee mooy que ni dañu dañu dañu xool gis ne euh, ñu ngi si euh, jub ñu ngi dem ci li nga xamante ne nii mooy euh, tàmbali jël suñu pétrole ak gaz pour di ko jëfandikoo. et bu ñu nekkee ci loolu nag yaakaar nañ ne ndaw gu ne dafa war a taxaw. xam fan lay teg tànkam pour mën a am ci li nga xamante ne tey mooy liggéey yi nga xamante ne tey pétrole ak gaz boobu noonu dina ko joxe moo tax tey ñu ñëw fi oo ay kàngam yoo xamante ne tey jii nii dañ leen fi teg pour ñu xam xamal ndaw yi wax aussi autorités yi ñoom nan la ñuy def ba nga xamante ne tey ndaw yi dineen mën a am li nga xamante ne tey mooy pétrole li nga xamante ne mooy sunu pétrole ak sunu gaz am ci li nga xamante ne mooy ay liggéey euh, ci loolu nag ñëw ñëw neen ñoom euh, euh, wax nen Euh, métier yi nga xamante ne ni moom moo nekk ci li nga xamante ne mooy pétrole ak gaz wax nañ aussi boo ci boo ko bëggee def nan ngay jaar et loolu yaakaar naa euh, euh, jàngale yooyu dinañ ko dugal ci li nga xamante ne ni mooy site yi nga xamante ne moo fi nekk ndax nit ñi xam ko gis ko. ndax mën a xool fan la ñuy jaar ñoom ba dem ci li nga xamante ni moom moo di métier yooyu. waa ndaw yi liñ leen di wax mooy mooy mooy ñu jéem a def lépp ba nga xamante ne dañuy am ay lijaasa yoo xamante ne tey dina leen permettre euh, dina tax ñoom ñu dem ci li nga xamante ne moom moo di liggéey ci. société yi maanaam si si bërëb yi nga xamante ne ni dañuy def pétrole ak gaz te foofu nag pour nga dem fa faf nga am li nga xamante ne nii mooy ay li yoo xamante ni tey dafa dafa maanaam dafa beru dafa spécifique par rapport ak maanaam secteur bi nga xamante ni tey foofu nañu nekk loolu lu am solo te ci loolu nag am na tey ñi nga xamante ne nii kàngam yi ñu fi indi woon ñu ñëw waxtaan ak ñun wax nañu nan nañuy jaar ba am ci li jaase yooyu te loolu noonu jàngale yooyu dinañ ko jël ñu def ko ci yi nga xamante ne jàngukaay yi nga xamante ni moo nekk ci li ñuy naan internet pour que ndaw yi nga xamante ne ñoo nekk tëngéej gis ko ndax mën a xool fan nañuy jaar ba dem fa Wow, loolu mooy ñaxtu bi nga xamante ne tey euh, teg nañ ko parce que tey bu ñu jëlee tëngeej mu nekk dëkk bi nga xamante ne tey maanaam li ñuy defaree ciment li ñuy tabaxee euh, usine bi ci gën a mu nekk tëngeej tëngeej am li nga xamante ne tey moom moo di euh, ñetti ñetti ñetti bërëbu nappukaay yoo xamante ne reconnu tëngeej am li nga xamante ne ni ñeent

pôle urbain ñu koy wax benn bërëb boo xamante ne ay bërëbu liggéeyukaay yu bëri ñoom ñoo fa daje donc tey bu ñu xoolee loolu yëpp mais dañuy gis ne euh, jeune euh, ndawu Tëngéej dañuy am problème pour sax am loo xamante ne ni tey dañ fay dem rek toog liggéey tuuti après ñu arrêté ko ñu naan stage dañuy am problème boobu dañuy am aussi li nga xamante ne tey mooy dem pour ñu jël leen ñu liggéey dañuy am aussi surtout maanaam ñi nga xamante ne yor neen ay ay ay ay bërëbu liggéeyukaay yu ndaw yu tuuti ñooñu dañuy am problème pour am ay ay marché maanaam jokkalanteeg maanaam euh, bërëb yu mag yi nga xamante ni ñoo fi nekk te nekk ci pétrole ak gaz pour am liggéey donc loolu noonu tey moom moo yokk ille li nga xamante ne tey mooy sunu ndajee ba nga xamante ne def nañ benn bërëb bu ñuy wax association rufisquoise pour le transport et logistique pour jéem xool jooyante li nga xamante ne tey jeunes yi ñu ngi koy ñaxtu pour taxaw ci pour jéem a may leen li nga xamante ne tey mooy ay opportunité yoo xamante ni dañuy mën a dem am li nga xamante ne mooy insertion maanaam dugg ci ci ci liggéey boo xamante ne nii dina leen yomb. li ñu gën a naqarlu nag mooy tey li nga xamante ne tey ñu ngi ko nekk di ko def parce que tey liggéey dafa am loo xamante ni moom la ñu naan local te contenu local boobu ñi ko war a gën a mën a incarner mooy autorité maanaam mooy ñi nga xamante ne mooy suñu njiit yi fi yi fi nekk te tey gis nañ ne. conférence bu mel nii bi nga xamante ne tey ay kàngam yu mag a mag a mag a mag mag na jëlee ndakaaru jëlee leen ci àdduna bi indi leen fii tey pour ñu wax ak ndaw Tëngéej yaakaar naa ne ñi nga xamante ni ñoo ñu jiit ñoo fi waroon jiit waaye nag mus neen lool am nañ lu ñu metti tey bi nga xamante ni ñëw neen fi te ñoom amul kenn koo xamante ni tey dëgg na fi tànkam te ñoom ñëpp envoyé nañ leen li nga xamante ne tey mooy invitation pour ñu ñëw ñu fekkee li nga xamante ne tey mooy ndaje gi wax ci li ñu xalaat société yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk maanaam liggéeykaay yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk wax ak ñoom pour ñu jéem a ut ay partenariat ay lonko à à ce que ñu jappalé li nga xamanteni moy jeunesse bi pour ñu am liguey et lolu wax deug yalla dañ koy nakarlu bu ba waaw lu ma jàng ci xalé moy mooy euh, kontaan déjà ci invitation bi euh, parce que permettre nañu ñu mëna partager xam-xam bi ñu am ci pétrole bi ak ñom et puis comme li may wax chaque jour euh xalé yi ñom ñoo mëna développer euh dëkk bi suba te gaz bi ak pétrole bi quand même dafa am impact bu mag ci suñu réew et lu mu ñuy wax ni da ngay anticiper donc comme da nga war anticiper xalé yi nañ dem am ay lijaasa dem ci école yi ñu former len parce que xam-xam bobu rek moy mëna tax ñu participer ci li nga xamanteni moy yok suñu développement wu réew. emploi yi bëri na mais comme li mo wax rek nit ki aussi pour ñu mëna la employé fo nga am qualification ku amul qualification mënu ñu la employé wala buñ la employé tamit lan ngay liggéey tout le temps may dégg nit naan jëluñu jëluñu jëluñu mais jëluñu la lutax tax jëluñu la parce que souvent aussi jeunes yu si amuñu qualification te ku amul qualification kenn du la jël waaw surtout pétrole ak gaz dafa laaj ay spécificité parce que métier yi si nekk dafa bëri xam nga tey ku jàngul amul lijaasa mënuñu ko jël mu nekk peintre si milieu pétrole bi parce que bateau yi sax pour peinture ko dafa am ay technique pour def ko pour jënd dafa am ay technique pour jënd donc ak leneen ak leneen ak leneen moo tax ma ni pour ñu développer suñu dëkk suñu jeunesse am nañ ko suñu jeunesse mooy suñu richesse comme am nañ suñu richesse ba pare nañ suñu richesse boobu na dem jàngi bu jàngee nag après nag ñu jox leen c'est-à-dire ñu diriger am na téeméeru métier ci biir pétrole bi donc am na jënd jënd ñuy jënd am na ñuy peinture am na ñuy tabax am na ñuy suude ak leneen ak leneen donc t'es pas obligé de passer par une euh, une matière scientifique pour c'est-à-dire avoir pour am métier ci biir pétrole bi waaw donc rek yaatu na métier bu yaatu la ku ci nekk am nga ci sa wàlla te je pense que ni sama xalaat liy développé suñu réew mooy ku ci nekk indi sa participation si développement boobu te ça passe par la jeunesse parce que xale mooy dooley réew